Gorgui Yacine Boye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi nga nekk secrétaire général du syndicat libre <laughs> des travailleurs du groupe euh, La Poste nekk membre de Pastef Rufisque euh, ñu ñuy xamal ni euh, groupe La Poste pour ñu jot seeni salaire dafay métti trop <laughs> est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci situation boobu waaw di wax si problème situation entre comme ni nga xam ne ni ñu koy yàgg waxee par rapport à nos sorties syndicales l' entreprise vit des situations difficiles et nous espérons nous sollicitons mhm, mhm. ñu ñu espérer ñu ngi yaakaar ay décisions yu majeures le gouvernement à travers le ministre de la communication la primature le premier ministre vont parce que ñun en tant que travailleur en tant que partenaire et toutes les organisations yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ak ñun li ñu jàppale mooy la clientèle le personnel les partenaires du groupe ñëpp teg nañ ay conclusions ci table depuis plus de trois ans ou quatre ans conclusion yooyu bu si autorités yi dubloo def si seen xalaat apporter seen parce que ñoom tamit dañ ciy apporter seen contribution dina sauver entreprise dina trouver solution yi nga xam ne ñun yaakaar ne en tant que travailleur di nga xam ne tamit dina toxal entreprise au bénéfice de toute la population et tous les bénéficiaires et tout ce qui ñëpp nga xam ne ni dañuy liggéey wala jublu soxlaanu suñu liggéey waaw. voilà léegi léegi kon euh, arriéré de arriéré de de salaire amul parce que retard de salaire su ma la déggee baax moom rek moo am. waaw amoon na. duñ laax te dañuy ñaan mu bañ amat amati quoi parce que je te donne un exemple mois passé. on est euh, mu doon weer boo xam ne dafa jege ñoon ouverture des classes rentrée scolaire bi hmm. les travailleurs ont très tardivement leur salaire loolu dafay am ay conséquences économique ay conséquences familiales conséquences scolaires par rapport à la prise en charge prise en charge c'est doléance wala bëgg-bëggu suñu njaboot ñi nga xam ne ñu ngi jàkki loolu lañ ci doon déploré loolu rek da lay wan a économique bi entreprise bi ñu ngi entreprise boo xam ne daana jot payoram o temps ko daan jot si délai yi nga xam ne un un travailleur sa fa yoon daf ko may que ne boobu délai délai boobu bu rombee rek war na jot salaire bu ko jotul rek situation bi doy na waar mais loolu dañ ko biir vivroon nañ ko am na ay moment yoo xam ne on reçoit tardivement mais on les reçoit ñu koy dafa sant yàlla parce que y a pas d'arriéré li rek c'est le retard euh, et économiques. Euh, d'accord léegi euh, tey jii Gorgui Yacine Boye en tant que syndicaliste yéen lan ngeen di suggérer état Sénégal ay piste de solution solution pour sauver la post parce que ñëpp xam nañ ni post mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe euh, si wàllum koom-koom bu baax a baax lan mooy piste de solution yi selon yow sa sa gis-gis. waaw solution yi bari na am na teg si table autorité yi ñun teg si table autorité yi. benn ay conclusion par rapport à. notre réflexion yi nga xam ne ñun en tant que partenaires sociaux en tant que syndicalistes ak euh, ñëpp ñi nga xam ne léegi jàppale nañ si liggéey boobu mooy clientèle bi autorité yi l' administration de l' entreprise et yi moom entreprise bi ñëpp mm. ñu réfléchir def si même mémorandum de plus de trente pages ñu teg si table ministre ak yeneen autorité yi présidence premier ministre ak toutes les autorités yi nga xam ne war nañ ko jot ak la clientèle ak les partenaires bu si sukkandikoo bu si état bi sukkandikoo apporter si leur contribution économique cest a dire seen xalaat seen piste de solution pour trouver des solutions pour trouver ay yoo xam ne day jëmale hmm. euh, tey jii parce que dañ doon wax ni euh, groupe La Poste ñoo doon fay euh, bourse familiale yi sociale yi à un ñu ne amoon na jafe-jafe blocage ba ñu bari jotuñ si bourse yooyu la est-ce que problème boobu c'est réglé wala lan nga ñu si mën a indil si ay leeral par rapport ak paiement wu bourse familiale yi. waaw loolu paiement bourse de sécurité familiale yi lu baax la loo xam ne c'est une solution économique c'est dañ dañ ci sawar nañ ci te liggéey nañ ci lu bari man mi lay wax fay naa ko en tant que receveur en tant que chef d'agence en tant que agent kon yàgg na fay nañ ci lu bari yàlla defa def ñu amoon des problème économiques entreprise bi am ay problème une partie wala sur le plan économique tax ñu une partie ñu jox ko des opérateurs mais ba léegi ñun ñu ngi siy fay mais bareeku mais dañuy ñaan yàlla ñu delloowaat ñu c'est am nañ réseau ñoom nous avons un réseau un des réseaux les plus vastes partout au Sénégal pour dugg via un bureau de poste dans au fin fond te ñi soxla bourse yooyu les bénéficiaires fi ñu dëkk yëpp am na bureau am na accessibilité am na ay agents état pour fay leen ñu ngi koy jaale si yeneen xarala yu bees yi loolu dañ koy nangu parce que c'est une concurrence boo nekkee si entreprise publique man loo bañ nga lépp yaa koy def mais li nga xam ne ne sur le plan social ça va ñu jëm si sénégalais jëm si ñëpp donc koy jox entreprise entreprise nationale protéger l' entreprise nationale moom la ñuy wax la moom la wax protect protectionnisme économique bon yàlla dafa def ñun on a on va on vit des moments mais ça ne veut dire que économiquement on ne peut plus payer ça il va falloir que on réfléchisse toogaat ak les autorités ñu xool nan la ñu koy joxewaat lépp parce que am nañ réseau bi am nañ personnel bi am nañ xarañte bi accompagnement wu état la ñuy xaar ni ñu ko defoon bi ñu koy jox si njëlbeen si début def. d'accord. mën nañ ko. Euh, am nañ en tant que membre Pastef Rufisque Ouest euh, naka nga gisee campagne électorale bi pour élection législative yu 17 novembre 2024 fitna bi nga xam ni déjà jot na se am loo ñu si mën a wax euh, góor gi Yacine Boye. ñun déploré nañ ko on a fait une par rapport à la presse et à nos on a un programme à déceler à bu ñu war a wax les Sénégalais ñu ngi koy dérouler y pas la violence c'est à c'est à décrier c'est à déplorer c'est à bannir et autorités yi dinañ ci jël les faut pour qu'il n'y plus de violence le reste di des ci campagne bi ba ñu jëm ci le 17 incha allah ñu am lu ñu bëgg à l'hémicycle donc pour nga dérouler programme boobu yëpp wax sénégalais li nga bëgg parce que on na maintenant une des des des des des élections des électeurs yoo xam ne ils sont exigeants il va falloir tenir un discours boo xam ne ne discours programmatique pour lay mën a permettre à ce que nga am une une une majorité assez acceptable à l'hémicycle pour pour mën si génn. Euh, nga gis aussi am na beneen coow ci campagne bi mooy euh, kàddu yi nga xam ne leaderu Pastef yëkkati na ko Ousmane Sonko euh, ci mille milliards yi ñu fekk ci compte koo xam ne bokkoon na si régime bi fii jóge naka nga gisee coow loolu Gorgui Yacine Boye. dafa doon coow loo xam ne gars dañ siy demeex seen ñàkk xam wala dañ siy demeex seen fi far. parce que discours bi boo ko déggee déglu lépp di nga xam ne ne li mu wax même bu amul boo ne même bu amul dama ne bu mu wax ne amul mais li mu wax c'est possible et ça existe euh, du ma dugg si détails yëpp mais man lañ defoo man nañ wax ne que ne y a eu pas mal yoo xam ne yu yoon sénégalais yi se pose la question et sur le plan économique war nañ ko xoolaat et y a des xam ne mën nañ ko teg pour loolu ba a am fekkee am na parce que ñu bëri ñu si déplacé dañ ne dañu xamul comment ñu organiser les structures les institutions financières wala ñu xalaat ne nit mënul am lool mais nit am na lu ëpp loolu am na lu ko mën a denc voilà bëgguma dugg détail ma parce que si lépp parce que c'est les institutions financières c'est des questions financier euh, il va falloir que buñ si wax tamit ñu xam luñ siy wax pour éclairer le Sénégal mais c'est pas un à ma simple sama simple connaissance sama xam-xam bu néew hmm. donné, on a trouvé toutes ces sommes dans un compte pour une personne. loolu laa si mën tool bu mais am na yoo xam ne lu waroon dem si askan bi bari na demuñu demu ko c'est des sénégalais yu koy yor ko am yu ko téye pour leur organisation politique pour leurs besoins personnels alors que quand tu quand tu aspires à diriger à être un politique une autorité ba comme li ñuy wax ni ñu ngi daganal baatu askan bi askan bi moo tax falu moo ñu fa teg ñoom la ñuy liggéeyal kon lépp lu ñu def rek pour ñoom. voilà merci beaucoup Gorgui Yacine Boye ñu ngi lay remercier bu baax a baax. c'est moi qui vous remercie. voilà ñuy fàttali ni yow euh, syndicat yow yaay secrétaire général bu syndicat libre des travailleurs du groupe La Poste nekk membre de Rufisque Ouest jërëjëf Gorgui Yacine Boye. merci c'est moi qui vous remercie.